di wax euh, comme sama slogan rek ku yor ñaari junni yoo may mayal ku la neex mais soo bëggee dégg-dégg jàppal C'est le bon TV wala nga woo Kona mbokkum réew mi ñu waxtaanee ko donc maa ngi nuyu internet yëpp national international yi teewlu. réaction wu rëg-rëg ak ay mbokkam bi làmb ji jeexee nan nga koy jàngatee parce que am na ñu bëri ñu naan rëg-rëg mënul communication ñi ko entouré tamit ay mbokkam jàppalewuñ ko parce que gis nañu dal nañ ci kaw Tafa Gueye dal nañ ci kaw euh, Bécaye mbay képp koo xamante ne daal wax na ne rëg-rëg def na quatre appuis dal nañ ci dem nañ ci sax ba gis yenn kàddu yu déplacé yi génn ñu koy waxante rëg-rëg tam fekk ci fekk si leen ci loolu ba sulli ay affaires yi nga xamante ne peut-être moom ak Balla Gaye ñoo ko seexoon yoo xamante ne bañ koy seex kenn feex ko naan maa jàppale woon bàll Gaye ci lii maa ko yóbbu kii mu ñaanal ko est-ce que loolu ndax nga koy jàngatee. waaw li nga wax dama ci ànd à 100 pour cent réaction wu rëg-rëg ak ki mbokkam koy ñaawlu rëg-rëg star la te dafa war a exemple mën nga doon star nag te doo doon exemple mais moom liwam palmarèsam ak parcours am war na ko may mu am expérience parce qu'il est un professionnel mbër la jaar ci lutte simple il s'est parti de rien du tout pour accéder à certains niveaux mu def ay preuve yu am solo ci lutte simple def preuve yu am solo ci lutte avec frappe lutte olympique lutte euh, champion d'Af champion d'Afrique le CBAO équipe nationale dem ba génn nag di def MMA kon kooku il est un exemple su ko yëgee ak su ko yëgul kon war na am staff bu baax Xaadim Njaay moom ku muy conseiller doo wax daam Xaadim Njaay te Xaadim Njaay ngelaw li moo ko indi Reug Reug dafa war a xam ni bi muy xoslu bi muy góorgóorlu boobu kenn gëmu ko su demee ba egsi fii dafa war a filtrer mën na jox ñëpp cër nag mais maanaam na ñoo xam ne ñu am wàll ci samay samay mbiru biir naa leen jox cër nag parce que say ancien prof ñoo xam ne dañu ñoo la jiitu ci aar bi ngeen bokk gox nice mais xarit bu muus noon bu muus moo ma gënal xarit bu dof man ko naa parce que xaadim du exemple xaadim xamul nu muy communiquer xaadim man nawloowu ko te képp kuy boroom xel doo ko nawloo parce que âge waroon na ko may mu am sagesse âge expérience am waroon na ko may mu xam lan lay wax si si si penc mi mais xaadim bu demee ba ñu egg ci niveau bii mu nekk nii te ku nekk lay xulool ku nekk lay wax lu lu ko neex ku mu neex saaga la ku mu neex xas la amul kersa ku am koy xulool sax xaadim ngay woo neexal ko mu xulool la ñun ñi am nañ fi ay revendications yu ñu doon def di dal ci kaw Matar Ba parce que en tant que ministre des moo génn di ñu saaga naan ñun fu ñu gis day xeex ak ñun. ay ñuy moroomu doomam la Matar moom moom moom Matar ba Matar ba ñu dénk ko argent contribuable dénk ko suñu ministère gis ni mu ngi doxal loo xam jaaduwul ñu taxaw di fëgg table di ko wax mais xaarim nee na moom moo ñuy duma ko xam nga kooku wérul moo tax nit dina yor jëmmi nit dina yor âge bu gën na may dégg ñu naan magum jëmm man ko naa soxlawu ma magum jëmm man magum xel laa soxla nit mën na nekk mag te du am xel parce que xaadim li muy wax ci mbedd yi loolu dafa ëpp loolu xale sax waru ko wax ma mais kii est-ce que ça mais ñun ñëpp nag dañuy gis nit mu yor tànk yor jëmmi nit am tur rek ñu foog ni nit la mais xaadim man li ma ko dégg muy wax wala ak ñëpp xam nga xaadim moog liiru du débat xaadim star la xaadim dafa def ci làmb loo xam ne moog liiru duñ catégorie bokkuñ sax catégorie xaadim moog ñoom tafaagay ay Yékini ku bëri ñooñu ñëpp def lu mu daan baaboo yi def lu mu def ci làmb day dem ba moog liiru ñoo bokk niveau est-ce que yaa ngi dégg fa ma yàgg liiru lay ku dëkkanteel di bëreeg moom di waxanteeg moom wax yi ñaaw liiru jàmm mais nga xam ne xaadim xamul sax moom mooy kan déjà te rëg-rëg ku xamul yaay kan mënul wax kan mooy kan mënul teg rëg-rëg si kot waxuma ñeneen ñi mais xaadim laay gën a dal parce que xaadim Njaay dafa daf ma daf man bettu ma sax mais chaque jour daf may décevoir de plus parce que boo déggee wi muy wax ci laa ci mbedd mi di dal ci kaw Bécaye Mbaye lan la ko Bécaye Mbaye def Bécaye Mbaye bu fekkee moom mënul wax li mu gis mais lan mooy loolu bu fekkee Bécaye Mbaye mënul nekk Euh, reporter yàgg ci làmb am expérience am lu nekk ci làmb def lu nekk ci làmb génnee fi mbër mu nekk Bécaye Mbaye su mënul toog wax li mu gis mais Bécaye Mbaye kon jaratul muy dund am âge bi mu am mu mënul toog wax li mu gis ci làmb moom amul droit wax ko wala lan mooy problème bi mu Moustapha Gueye li mu def ci làmb te Xaadim Njaay moom Moustapha Gueye da koo daan bëccëgu ndar kàmm ñëpp di gis Moustapha Gueye li mu def ci làmb amul droit wax li mu gis ñii lan lañ bëgg non man damay toog damay jaaxle des fois ma ne nit ñi est mais nit ki li mu gis délit d'opinion maanaam nit ki li mu gis loolu kenn waru ko cee xas Tapha Gueye waxul far force li mu wax mooy am mais moom li mu gis la wax Bécaye Mbaye li mu gis la wax Modou Mbaye mais Modou Mbaye chaque jour mu analyser lii lan moo xam la laa nanguwul ki bu analyser lu positif si sa mbër nga ni moo fi gën. Modou Mbaye moom nga tudd moom dee na làmb ji dafa am ay ancien band yi nga xamante ne dañoo dem ba yàq seen live ñëw bëgg def làmb ji issue de secours quoi. wax na dëgg. dëgg moo neexul rek mais wax na dëgg xa euh, Modou Mbaye li mu wax dëgg la bu ci waat desee na ma woo ma waat ko Xaadim Ndiaye waxu bandi lay wax di même bu waxut ak moom Xaadim Ndiaye waxu dof lay wax Xaadim Ndiaye li muy wax amul njariñ man damay rus sax Xaadim Ndiaye nekk mbër ni nga may gisee nii dama ci am gàcce ay Xaadim Ndiaye ay liiru jaan ñooñu taaraluñu business bi quoi rafetaluñ ko xanaa xamoo corporation day am cat ñooñu ay catu corporation bi lañ rëg-rëg nag bu mu dugg ci loolu. Reug Reug dafa am dafa am lu muy mesurer dafa am lu muy représenter te xalé la dañ ko wara encadrer ñu bañ ko jay mais la plupart gars yu bari dañuy and ak yow dañ lay jay mais gëmuñu la bu daano daanuwaat ñoom ñom ñoy taxawat diko xass na meytu lolu champion la liko Sa ties dan yaqul dara ci carrière am mais limu expliquer ci si Balla Gaye dina tax ñu doon ak mom kenn dina na ah ki de comme bu také day wax da nga xam nga nit mu ngi jema nuyir nit fekk borom xeli yow lañuy meytu parce que li Balla gay doon sekk ak mom fek mu ngi doon am ak mom Balla gay jam do ko wax léegi nga am ak mom ben contentie ta lamb la Balla gay bu ñewul dar rakam bu ñewul excité wu ndax rakam mais lan lay def il est dans son logique dans sa logique du moins Balla gay li wara def lool la war loolu la wara def c'est le minimum dafa war a ñëw dafa war a ànd ak rakam dafa war a dafa war a bu ju dafa war a sax déconné bu déconné sax da ngay xamni ne la mais ça ne veut pas dire que rek mu fo wara a def ay déballage dina tax nit bu doon moom dina ah, parce que leader warul gaaw pété les leader émotionnel merci frère warul émotionnel nga raison garder xam ni tey situation bu amee nga sérénité mais ku topp médias yi micro yi boo leen toppee te ñu lay poser question niveau ñooñu ñoo toog ay gel ñoo ñëw toog xam nga wër la amuñu niveau liñ lay laaj daanaka waxu dof lañ lay wax des fois nga tont boo dofee dëgg nga tontu leen tontu dof ñu dugal la nag ba pare taxaw fële tey ñooñu ñekkoon fa wër seen micro am na yenn niveau yoo xam buñ ko amee duñ dugg sax ci yenn détails yi boo fa naree dugg sax ñoo lay génnee parce que xam nañ ne amalul njariñ làmb tey te yow boo ma doon laaj nii ma bëgg a dugg fenn fii yaa ma war a dimbali ne ma foofu du ko jar parce que bu ma ko waxee tamit après dama koy réccu Reug Reug yi mu wax loolu mu wax yëpp ci mer la ko wax bu toogaatee yedd boppam xam na ni jarul woon muy wax yooyu yëpp léegi nag yow miy laaj nit ki bu bëggee dugg ci yenn yi sax yaa koy sauver mais ñoom na seen site nañ am vue nañ am mais yow miy wax yaay nite nañ am vue nañ am scoop ay Reug lu mu wax Balla Gaye def titre bu garaaw def ay photo ñoom ñoo ciy gagné mais yow après tu da ngay perte te image Reug Reug moom warul def loo xam ne daf koy salir te communication dafa solo te am na dañuy bañ Reug Reug na Xaadim Njaay si te warul warul am noonu parce que champion la dafa dafa làmb dafa ko soxla dafa dafa dafa xeexal aussi Sénégal teewal Sénégal fu nekk tey MMA bu muy dem di fa bëre loolu dafa taaral Sénégal ñu ni mbërum làmb ca Sénégal mooy bëre MMA yi di si am ndam loolu dafa rafet léegi nag moom dafa war a fexe téye drapeau Sénégal mook Sa Thiès ay frère lañ Balla Gaye frère am la dañuy jubawaat sax parce que mbëri seen xol dara nekku si ni nga ko gisee nii ñoom bu ñu après pare nañ si nañ saafonte bi démb moom ak Sa Thiès lëngu jeex na mais Xaadim Njaay maa dul maa ko dul baal parce que kilifa dafa am loo xam da nga ko war a jomba wax da nga ko war a wax parce que jomb gis nga ñun dama koy wax si politique bi dañu am ay patrimoine dañu am bien boo xam ne c'est immatériel xam nga bokkul ñu am pétrole bi gaz bi zircon beeg essence beeg tëli yi am loolu bien matériel la mais dafa am bien immatériel mooy valeur mooy jomb-jomb mooy exemple mooy respect d'un parole donnée mooy respecter voix publique bi savoir vivre ensemble mais bu fekkee ni yow lu la neex ngay toog di wax tu ne respectes pas les gens tu ne te respectes pas toi-même tu ne respectes pas ta corporation ñi nga bokkal métier bi sax nga bàyyi leen xel mais boo toogee ci plateau di wax naan dama dugal sama loxo ci ngembali daj non mais lan moo xew ay bu kii daanee ma lekk xaj lan moo xew lan la lan la lu xew lan dañuy dee te yow li nga dund ko ko mënoo waat ni da nga koy dundaat ñun xale yi ñoo waroon am attitude yu mel noonu mais pas Khadim Ndiaye mais chaque jour ça répète maanaam bu doon la jote na fekk booy Kayre wax ko wax ju rëy sa papa Kayre ba père Kayre du jooy ba fekkee ak keneen ak keneen ak keneen du moom kese lu muy wax Tafa Gueye nag moom te Tafa Gueye du nawleem Tafa Gueye du nawleem Tafa Gueye làmb da koy tiitaroo Tafa Gueye Bekaay Mbaye làmb da koy tiitaroo Moodu Mbaye làmb da koy tiitaroo parce que xale la il a le droit de dire son opinion Modou mbay bokk na ci ñu promouvoir Reug Reug Modou mbay Bécaye mbay bokk na ci ñu promouvoir Reug Reug ñom li ñu gis lañuy wax parce que lolu moy sen rôle c'est le droit le plus absolu. Modou mbay bu ta analyser ci làmb ba heure bi mais jaratul muy wax Bécaye mbay bu ta wax lu mu xalaat ci làmb ah tafa gay nak mom mo gëna am lu ko nakari parce que mom c'est un ancien pratiquant ba pare mu nek analyste ba pare mu nek ko xamanteni ni chroniqueur la manam day sax décortiquer dafa gay day teg jël bi décortiquer wan mbëri clé bi clé bi boko defone fi nga waron jaar fi mais loolu ci extraordinaire pourtant mënon na bayyi lamb def comme Mike Tyson dem nek si ay business am di tabax ay immeuble am di louer nek si bopam ak ñeneen ak ñeneen mais dafa ñew di delloo amour la am si lamb dafa am si ay nit man mi di wax ak yow man mënon na dem sama yoon nekk si sama bopp mais dañ bëgg làmb dafa am si ay nit dafa àggee noonu la te noonu te ni nga ko gisee noonu nitu kese la parce que man dama ko pratiquer Moustapha Gueye man mun naa ko seede man bokk naa si nit yu mu gën a bëgg man dafa ma bëgg dafa bëgg lu baax ni nga ko gisee noonu dafa bëgg ku osé man ba may bëree sama combat yu bëri Moustapha Gueye moo ma ko doxal moo ma koy doxal dafa ma bëggoon dafa ma dafa ma ba léegi nii lépp lu ma nekk moo ngi si ba pare dafa bëgg lu baax dafa bëgg làmb ba pare dafa bëgg ku correct dafa bëgg ku ku am personnalité dafa bëgg kuy wax waxu nit moom noonu la mel ba pare bëggul injustice moom loolu yàlla noonu la ko bindee.